hier ngi xamal ne la GIGN ak BIP euh, ñi ngi fi nga xamante ne Casamance pour jël ki nga xam modi Ousmane Sonko mais jël Ousmane Sonko danger ci nek su fekkee dañu jël Ousmane Sonko bëgg ko jaarale ci yoonu suuf lu ne mëna xew ay attaque mëna xew tay bu len fàtte fofu amna lu fay nelaw yeewoogul en Casamance muy rebellion bi kon képp ko Sénégal ñor war nga wax ak le président Macky Sall parce que jàmmi Sénégal bi yëpp ci benn loxo la nek muy loxo le président Macky Sall su ne dette déet ñu ne déet su ne waaw ñu ne waaw mais dafa am fo xam ne fa toll doole war nga baña def forcing ak sa population parce que li il indi ay soulèvement li il indi ay guerre civile li lu nek mën nako indi ci réew mi te li ci réew mi gagné la bëgg a xam li Sénégal lim ci ñàkk mo ëpp donc nañu xol ne li dal vraiment gisuma fenn fu mëna a le Sénégal donc savez bien que né Sénégal à l'heure actuelle que je vous parle mon cible la ligne rouge la nek Sénégal fi tolli pays de danger la né mbooleem xalé canadiens yi nga ils résident au Sénégal américain yi résident au Sénégal ils ont eu des messages yo xamantene dañ leen ni envoyez message d'alerte restez chez vous le Sénégal est en danger donc nak pour que rew mo xamné dafa am lepp lo xamné ay ressources la am ay potentialité lu melni gaz lu melni zircon lu melni marbre lu melni cuivre lu melni li nga xamanté moy pétrole donc yu mel non su ko rew amé warna moytu dama wax né dal à l'heure actuelle si je vous dis la vérité Sénégal dañ ko wiss bam daj ak pétrole briquet bi nak sur euh, mi ngi nekk ci loxo le président Macky Sall su bëggee rew mi tak dina tak su bëggee rew mi am jamm dina am jamm encore une fois je vous remercie coow le Sénégal Sénégal, toujours près de la population. Merci Thioli Sénégal. Abonnez-vous Thioli Sénégal. Abonnez-vous Thioli Sénégal. Abonnez-vous Thioli Sénégal. Abonnez-vous Thioli Sénégal. Abonnez-vous Thioli Sénégal. ndax man li ma soxla ci xibaar yu wér te Sénégal.